boo dee jàng xasida dana ma la yóbbu fa nga bëgg àgg ndax xasaid yi qaimatun maqaama cheikhin maraqin yahbul maqaama xatiya toosile man xubala bi xëyri xali wax ni wa yakfi kulala kon nag Sëñ Abdou Lahad bu fekkee da ngay jàngale xasida di ko jàngal taalib yi ngir indi yar bu démb ak jàngale bu démb dafa am solo sa turandoo bi mu fi jógee dafa woon jàngale képp yëpp enregistré seeni i ngir bañ mu raax ba def ko daal kamil kon soo jógaatee nag def lii day mel da ngaa sof ca loola kon nag loolee nga sof tamit liggéeyub Sëñ Tuubaa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 بها يزول العزاء والجعل والكبد